xamante ni ñoo nekkoon di xam nga yaa ngi wax Ablaye Daouda moo tax ngay wax mais Ablaye Daouda ñi àndoon ak moom c'est de grands responsables dans le parti ay mën naa ci lim mën naa ci lim euh, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est une personnalité dans le pays ki est maire à Kolda naa ci lim euh, Aliou Dembourou qui a été maire député à sa troisième législature une figure dans le parti Banda Diop parti socialiste bokk sen gis nga dégg nga ko tey ARFM waaw déglu ma ko ancien maire euh, pardon dama lay jox exemple Banda Diop ngeen jël ko dàq ko sànni ko mu nekk à la périphérie jox leen ko dara ngay lim Banda Diop danga may déglu dama lay laaj ci la bokk mën naa Khalidou Wagué tu le connais très bien qui est un ami du président Macky Sall son jeune frère qui est mort maire de Bokki Diawé Diawé et tu sais lan la représenté dans l'Alliance pour la République mën naa euh, de des des l'autre responsable de Padoa mën naa ci lim Sira Ndiaye mën naa ci lim ay Aïssatou Ndiafat mën naa ci lim lim lim lim lim lim lim ñoo xamante ni tey il sont dans l'alliance pour la république nekk en dehors dans l'alliance pour la république àndoon moom di ko jàppale waxuma les responsables yi nga xamante ni ñoo nekk au niveau du Fouta nekk ay directeur nekk ay maire nekk ay non déglu ma non non attends attends continue ah, à citer non déglu ma non non xam nga xam nga dama ne non continue à citer ma citer ñëpp mais si non attends s'il y a des responsables et des DG au niveau du faut donner les a énormément ça doit être des ma non ma xam nga man nekkuma fi nekkuma fi je suis trop transparent trop. xam nga soutien en politique soutien ci suuf. soutien non déglu ma dama ne je suis trop transparent am na ñoo xamante ni daan nañ ñëw kër Ablaye ndekkee fa dem añee ji kër Amadou Ba bu ñu paree dem reere ji kër Aliou Guèye Ndiaye <laughs> donc bul ma wax loolu loolu euh, yàgg na fi donc juste pour te dire que ak ñoo xamante ni dañuy woo président ah président de la république man de vraiment euh, kii Ablaye sama rakk la waaye ah man de je suis avec toi Amadou sama. c'est comme ça dans la vie et puis des gens comme ça. donc li ngay wax wóorul non dama yaa dama mais ñu xam nga je t'ai des gens ñoo xam ne ils se sont affirmés xam nga man je suis un homme qui est dans le parti Abdoulaye Daouda Diallo du moom moo ma formé politiquement du ma booyam mais c'est quelqu'un boo xamante ni xamante nañ tu sais man Abdoulaye Daouda Diallo laa njëkk xam Macky Sall lu bari lu ñu xamul Abdoulaye Daouda je l'ai connu au conseil de la République mu nekk secrétaire général nekk un jeune vacataire dans le cabinet de Mbaye c'est là-bas que Mbaye Jacques présenté ma ko ci laa xamante ak moom boobaak léegi tàggoowuñu man ak moom dem nañ ba on a une relation fusionnelle loolu taxul ma jàppale ko parce que c'est pas parce que dama ko jàppale parce que xamante nañ loolu dé dëgg la loolu ci la mais dama ko jàppale parce que jàpp naa ne am yaqin ne am na légitimité bi sur le plan politique électoral sur le plan de compétence am na valeur yi te am na la carrière d'un homme d'État qui peut lui permettre d'être un chef d'État lii moo tax ma am sama position jàpp ne le meilleur choix pour succéder o président Macky Sall Abdoulaye Daouda Diallo loolu c'est ma conviction ma nekk ci et aujourd'hui amul dara loo xamante ne nii mën na ma dévier ci sama xalaat par rapport à cela xam nga Mbow le problème ce n'est pas Abdoulaye Daouda c'est quoi Abdoulaye Daouda mm-hmm. bu ñuy séddale dara APR. Mhm. bu ko neexee mu réclamer wàllam te bu réclamer wàllam kenn kenn ko ne cim. Mhm. ndax au plan politique. Mhm. il a fait ses preuves il a été un compagnon des première heures. il est à Podor. et puis au plan institutionnel intellectuel tout ça. il a la légitimité le problème c'est pas c'est pas c'est pas Abdoulaye Daouda Abdoulaye Daouda avait le droit de candidater il a candidaté le problème c'est que après le choix soit fait que yéen ngeen menacer les bases de la stabilité de votre de votre formation politique et ce qui est bizarre mooy c'est pas Benno qui pose problème c'est pas euh, les gens de Macky 2012 qui posent problème c'est au sein de l'APR même que le problème se se se se pose te booy wax soutien man ñi ngay wax ñii ñëpp c'est toi qui m'apprends que à part quelques-uns qui ont eu le courage de s'afficher yow on sait au côté étais aux côtés d'Abdoulaye Daouda Aliou Dembourou on sait qu'il était aux côtés d'Abdoulaye Daouda Kalidou Wagué on sait ak euh, deux ou trois mais boo taxawee fii naan ay ministre man gisuma ministre bu taxaw assumer ne il est aux côtés de Abdoulaye Daouda au niveau de Podor bi nga xam ne moom moo nekk sa base sa première base. Mm-hmm. gisuma un grand responsable bu taxaw ne moom Abdoulaye Daouda la àndal tu sais ce que les gens ont non mais mais mais mais mais mais mais mais yow xam nga Podor ñaata député la am. Ah, attends xam nga Podor ñaata député la am. tu sais ce que les gens dama lay expliquer ñaata député la am. on s'en remet à la parole du président de la République. je reviens je reviens à ça je reviens à ça ah. je reviens à ça. waaw Podor ñaari député la am muy Yeta. qui est maire. foo déggee yàq ak ah, dem non déglu ma ah, dama lay wax man. télé laay wax télé wax télé laay wax. non ah, déglu ma non déglu ma waaw mais déglu ma télé laay wax. Yata est maire. waaw di vice président à l'assemblée. waa déglu ma waa déglu ma rek déglu ma xam nga da laajte man télé laay wax li may wax nëbbuma ko dama bëgg ñu dal ñu waxtaan sénégalais yi jëli ci njëriñ Podor ñaari député la am muy Yata. nekk maire nekk de vice euh, nekk vice président à l' national nationale Abdoulaye Daouda lay jàppale loolu ñëw na fa ci moom nekk ci moom ñëpp xam ko même le jour de sa déclaration il était au conseil économique social et environnemental Demba Ba mooy beneen député bi. Ablaye Daouda la jàppale. bu jàppale Ablaye Daouda da ngay déglu wax déet lool da ngay da xam a waaw da ngay déglu da ngay déglu tout cas ñaari député la Podor am. waaw mais ñaari député yi waaw doo déglu nag man xaw ma ku koy jàppale ku ko dul jàppale mais dama lay wax rek man ay fee laa lay wax ñaari député la ñaari député yi moom la ñuy jàppale. Demba Ba était au conseil économique social tu connais Mamoudou Dia qui est président du conseil départemental de Podor. il était au conseil économique au premier loge gis nga ko ak yeneen maire gis nga leen Ablaye Daouda Diallo souvent sànq dama dama am ku ma doon wax ne ma ne ma non daaw Daouda Diallo sa commune euh, nangam nangam au niveau de Podor yow xam nga un la configuration électorale par exemple boo jëlee tey au niveau de Podor boo boolee par exemple njum podoor ak Ngendane ñetti commune yooyu commune bokki jalo bi moom moo leen ëpp plus de 23000 électeurs ñetti communes laa la wax c'est juste une grande commune boo xamante ni tey su non damay expliquer non c'est important parce que li may wax non attends non attends non mais non bokkee ak Podor ah. li ma la wax mais c'est des faits je t'ai dit les députés je t'ai man am na détail yoo xam ne am na détail yoo xam ne bugguma ci ñëw parce que man pour man loolu c'est des su suñu jugee ci loolu mais l'Alliance pour la République Maïmouna journaliste nga une petite réserve sur Yatta Yatta amul réserve ma ne une petite réserve sur Yatta Sow Yatta Sow ba bi ñuy yóbbu ab Ablaye Daouda Diallo décès elle était à fond depuis quelque temps Yatta dafa nekk un peu en retrait le soutien n'est plus aussi ferme et aussi total malgré le long compagnonnage. waaw léegi ku soutenir Abdoulaye Daouda waaw léegi ku soutenir Abdoulaye eh, ku et attends ku ku soutenir Abdoulaye Daouda et beaucoup de gens qui parce que xamoon nañu ne c'est la dérivance. non non mais attends non non mais attends ils étaient aux côtés de Abdoulaye Daouda. waaw léegi mais durant le soo ko waxee. waaw ah. parce que. bokk eh, ma bu dee yeta je te dis que ici c'est pas vrai parce que à plusieurs reprises fekk na ma. kër daaw Daouda ay jabaram ñu ngi may dégg à plusieurs reprises Demba Ba toog naa mu toog ab lay daaw Daouda toog mu ne ko décision boo jël avant samedi waa dama lay wax rek dama lay wax nga dégg pour nga xam parce que c'est des infos qui sont importantes boo jël dinaa ci ànd ak yow et je pense que loolu il faut que les gens le sa